Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam rr sama <laughs> barki rasulilaay ak ñoom gasama yow kay dafa ma Omar Youm met Omar Youm sama mag jeex kenn day moom ak ñoom ñoom ñoom Seydou Gueye ak ñoom Cheikh Ba ñu ngi bëggee barki yonent bi lii leen bëgg ana Doro Gueye sama càmmiñ ba xam naa moom it mu ngi bëggee yow Medoune Diallo rek ak ak Nicolas Meneen Papa sekk dagam nday xadi ña nga ma yóbbu woon ca Guinée Conakry ak ñoom Afrikando man rek ci réew mi xamna naa Adja ñu tuñu ngi bégee ak ak maître Dior Diagne ak ñom Nafisatu job rek leen awa ngeen bëggé nag ña ngay baal gisuma eh, ñu mi waaye mi na ko ana Alimatu Diawara ak ñoom tonton maam biram waaw kay seen âge yi eh waaw waaw rëkk leen ma ndiiri njalloog faa booy xam nga ne xam nga lii de déglu ma ñëw may naa ko ñëw ne nan rëkk ak ñoom jaan bu tuuba barki rasulilaay e eh, soxna naata sàmb sax ma ngay baal yow Ndeye Saly Dieng foo féetee ministre de la femme mën nga ko milim ñoom ñëpp a koy xët barki yonent bi ma ndiri njal xët leen ma ñaw ana ana ana ana Alimatu Diawara génnal Adama Camara quatorze mille voix yii la ñu mën jël leen ma may maa ngi ñëw indi délicace fort salaam salaam salaam salaam mbokku sénégalais yi waaw kooku Medoune Diallo la fàttaliku démb rek di bëggee ñun Sénégal defuñu lu dul sant sunu borom bi tey bëggee ku bëggeewul nag dana la noppal de waaw kay nan leen enjoy Medoune Diallo Africando koy may way sama sama sama chamin ba barki rasulillah ken day mom Cheikh Tidiane Ba ñu ngi lay bëggee di bëggee No Bamba Fall man na li Bamba Fall Miru Medina Bamba jëlal jëlal sa costume ak say mukase nga jóg wa nga taxaw nga defal ma quatre pas barki yonent bi àddina la kay soxlawul jang mu bari barki alxuraanu karim wala wala amna ay dafa tara nga toog di bal di re te kat munti fecc waaw waaw ay da ngi ci biir xëtal Mami jay sama doom ji serafa okay ñu seerafaal la ñu wax sama doom jooju yor sama feesu passeport bi te tëju ko deful kalabante yaayu xale yi def léegi di tëj sa page yi waaw kay ba mu ko yoree ba léegi jooyuma jënduma page mami njaay bu ay dapataraay seerafaal la ñu wax waaw kay xam naa tuuti nga ci lii ma tax nii waaw kay doom yal na yàlla def jàmm lii Sénégal dafa tàng ma bàyyi ndeku saf te saf te xam luy waral cafaay lii dala mi duñ jàll wax yow bégee rek waaw waaw waa mani ana les défendeurs de son excellence ñu pare ñooñu ak DSM groupe support président Macky Sall bu ñu ko amuloon barki Serigne Babacar dinaa woo Marème Faye woo Alimatu Jaawara woo Nafisatu Jóob woo Joor Jaañ woo woo woo woo woo woo Ndey Sali Jeng ministre de la femme bu baax balaa wax woo Soxna Naata Mbàkke waa kay dañuy def ñaadam ñaadam ñaadam ba Égypte ñu defar président Macky Sall indi ko daane papa yaay doom bii teg ko fi mooy suñu ferte barke alxuraanu karim la mu def président Macky Sall li mu def nga ni ma defaan waaw kay defaan mbaay yàlla na gudd fan moom son excellence joxal leen ma président sama sama tiktok leen ko ne ko sa jigéen baa ngi lay ñaanal nee nga tëdd nga féex nga def ni birima liggéey nga ko fi ñi seen xol yi baax taabut président Macky am kii barke alquran yow ya la no andal, jëlal bang mu toog Macky Sall nga deg sa yu baax yi nga def ci rew mi ñu and ak yow nak faru nok yow pour muy clair li nga def ci rew mi di mako won motax man ma and ak yow son excellence lo dundu doyul sa dundu am na ya njëriñ yalla la yalla defal jamm Yak sa njaboot gépp mooy senegal ak sa soxna su baax soosu ajaratu Marème Faye ak wow wow wow fecc wow, wow waaw waaw waaw waaw waaw waaw wow ñooñu waa Afrikando la mbokk sénégalais yi ñu ngi leen di nuyu ginnaaw ba nu santee yàlla julli ci sayidina Muhammad sante suñu ñaari wajuri di bëgg sëriñ babakar si di ñaanal bép Khalif généraux bu nekk ci réew mi ñi ngi lay ñaanal yalla nga yeggali sa ay bi ci sa sogo gu ak wër di leen wax ni suñu ngëm-ngëm ci yeen du ma sa deñ ba ci wa kër Omar Fuuti yu taal suñu mam ja mi waral ciowli maniko ko demay sé waaw kay may wax sama sëriñ ba alpha ma yoro suma koy wax ci kaw lay xol Alpha ma yoro waaw kay man suma wax ci sama nit ci kaw lay xol moy wax president Macky Sall dama nan ko your highness sama guay your excellency your highness lay wax president Macky Sall xam nga lutax dano doni sénégalais dëkk ci dëkk bi. ba fi juddoo yàggut ya, waaye xam nañ ku fi defar ku fi defut sàlla mu ñëw rekk fa tabarakallaahu sama xaali xiin yàlla defal ko wërsëg lépp baawaan mu ni mu ñuy defaral li gën a am important ci économique mooy demalante dikkalante waaw fa la économique bi di duggee fa la commerce bi di doxee fa la gisante bi di yombee fa la dem ak dikk bi ne ka xëyee kees mën a ñëw liggéey ci Dakar lijjanti wala boog yu neex yooyu doo leen ko wax ñun dañ koy wax li mu inauguré ci réew mi ba suba ci jam ñaajo bi mu fay inauguré président Macky Sall man sa jigen bi nee nga doxal amandiiri ah, njalloog mandiiri fabo yi ah, na lay yalla musal ci bi ak bi ak man ak man waaw kay mandiiri njalloog mandiiri fabo yi ci yalla musal ak yéen ñii duñu setan ñu tok rek pour waxante deug rew mi kenn ñu ci yay président Macky fi yalla tek like or non like mu neex la yow mii di ma seetaan mooy sa président mu naqari la mooy sa président amoo choice lii la sunu borom bi def man moo tax sama àddina neex man ki yàlla baaxal man dama ciy ànd lu ma ci man munuma ci dara président Macky Sall nekk ci réew mi neewul mbuu neewul mbaa dégg na fi lu ne mu def tekk bu doon siisumaan ay bu doon kura maki <laughs> ba ma gittangaas ak yéen sénégalais yi di def xoolal moo ma neex maay président bi moo ma neex am na fi di jël xaalis bi di paadi réew mi réew mi ñàkk luwaa mu ñëw ni damay dimbali sénégalais yi état bee nekkoon naa fa gis naa yi ñu def yëpp dama ñëw pour defar Sénégal sénégalais yi mais ñi seen xol yi taab ñu ne ñoo bañ ñun waxunoo yéen ñun boroom xel yi lañuy ñuy waxal ñun ñi am servo ñi nekkul ci caru garab yi di naaw bu taw bi ñëwee tooyal leen ñu wàcc su ngelaw li ñëwee woowal leen fu mu leen yóbbu ñu dem man waxumaak ak ñooñu man yal na ko yàlla defal jàmm président Macky Sall yàlla na yeggaleeg sagoom ku ko bañ di xaar defetam yàlla nga xaddi ma teg ci ne ku bëgg a nasaxal Sénégal yal na la yàlla nasaxal ku bëgg a fitnaal sénégalais yi ci tekki gii nu def nii di dundee ci di dundee yàlla ñu bëgg ñëw ruube sunu réew tay jii dangeen ngeen a war a am trois cent mille ci seen pétrole indi fi xeex ndax lan sa naq ay na fekku politiciens ñu yàgg ñi nga xamantene ni duñu doyal ñi nga xamantene ni buñu sañoon ci nguur gi nekk di nekk rek kenn du leen remplacer ñuy taxawalu gumbala gennal nga jël sijaada nga lal ko nga tok da nga jël ndox mu sedd nga tek ko sowe ndax di nga xam xam nga yow lan ngay def gumbala politicien jaay sa bopp mooy cagatu politicien caga bu teyee yaa nga ca ma dikke bu subaa yaa nga ca Idrissa bu gannaa subaa yaa nga ca Macky gannaaw suba yaa nga ca euh, euh, Pire gannaaw waati suba yaa nga ci Malick Gakou mu perte mi gannaaw suba yaa nga ci Sonko mu torox mi yow gumba la foo féetee sa poos feesagul de yow mooy mën a ndiir daf laa ëpp palmarès ci réew mi yow sa palmarès euh, su politique yow gumba la baaxul nga mel ni bañ a dugub kenn du yow li ngeen war a wax ci réew mi waxu leen ko xam nga mooy lan xale yi di joxe seen kii ñu dal te ñu jéem a dem xool naka lañuy ñuy dimbalee yaay du ñëppay politique gisoo ni nga perte yow gumba la joxal leen ma ko sama sama sama vidéo bi mu déglu boppam moo xam ni moom caga politique la day wër Macky génnee leen ko ci violé bi Sonko violé Adji Sarr yow gumbala wooma sama numéro ngi ne laaj ci réseaux sociaux bi wooma ma wax la Sonko yu mu def nga xaru yow doo nitu dara xam nga ne la nga doon wax ca may mun a ndiir bu la ca woon coroxoon boo dee safara nga jëm nee naa leen Sonko aji sar yàlla iya mu laaj sama rew mom Usman Sonko mu tilim moy kotu yalla iya bu bari sobe bi mu laaj sama rew mu yak sama xolu ak sama xelu doomu rew ba nu gem ko ndekete mi ngi dem ci keur yoyu mani keur tiaga yi nay xadi tiagala pimp lako ko américain di wax pimp nay xadi you are pimp nga jël xalé yu amay 15 ans di len pimp ñi bëss seeni moromu bàyyi def len taatu neen Ousmane Sonko ma man la wax def ñaadam ñaadam ni fo ci jëkku si bi Ousmane Sonko ya ñak jëm yow yalla mo la wër Sénégal liko ñaanal mi ngi ni moko tim bandi cerveau du yor réew mi du yor réew fenkat du yor réew mi senegal yi ubbi seen bët yi ngeen déglu Ousmane Sonko bu baax xam nga lan la xewal nii ñu ngi ci 2022 Ousmane Sonko am fitu taxaw élection député mu joxe candidat pour Ousmane Sonko bu démé projet ak Adji Sarr kaccat ci kaccat leen ci président Macky Sall sénégalais yépp xam nañu yoonu président Macky Sall la nekkul Sonko mu dem na fa demat fa demat fa demat fa ku ñuy sadap dañ lay wo Sonko génneel sa xarit bi la yobbu suite bote nga jaawale koog Imosène xawma Imosène nday xadina ba nga ñëwé ndax da nga jaawalee ndax la yaw nga ni sama ben xaritama fa yobbu Sonko Sanko, you are creepy, you are liar. ñi farag yow xam nañ ne Chukuru nga xale bi cukuruwaat ko cukuruwaat ko Premier ba chukuru koy cukuru dafa bañ bañ nga forcé ko viol bañ nga forcé ko viol Sonko no is mean no yow xamoon noo Sonko xale yi ragal seen mbokk yi xamuñu ne woon foofu la ñuy liggéeyee xale yu bari ragal bañ a wax pour seeni waajur Sonko yaa bon sama réew ngay laajte di dem ci kër yooyu di fa joxe fukki junni fukki junni nga doon joxe saa yoo demee fukki junni Sonko mujj gi nga mujj ci chocolat mant <laughs> barki rasulaay Atepa Goudiaby li mu war a def def ko moy wax ak président Macky Sall ñu ñaanal Sonko Adji sar ñu may ko ko mu abuyé ben yoon ñu may ko ko parce que bu Adji sar vert clair Sonko dem jëndi ne lañ ko jëndal vert clair muy ñaawal sénégalais di mokke sénégalais nok Adji sar bo dof ngani ya mani manipuler sénégalais ya len titel ba nga génnee APR dañu daw loolu nga wax som waaye yow bu Adji Sarr génnee nga gëlëm barki rasulilaay sama doom ji rekk <laughs> aji mu jóg def ñaadam ñaadam ñaadam yow góoru sénégalais loolu lañu bëgg yaa ko dig takk danga koy yóbbu ca White House ba yow Sonko bul wax ngeen jàpp doomu jàmbur bi di ko def slave sex slave moom ngeen ko doon def ca kër googu ndax xale yëpp danoo daw mu des aji rek ku jongo ne fa Sonko ni du bàyyi xale bi dem naa fa demaat fa demaat fa sénégalais yi lan ngeen di déggee naa fekk yu mel ni ay gumbala naa fekk yu mel ni ñoom Pape Alé Niang naa fekk yu mel ni ay ñoom Ahmed Aïdara Barthélémy Dias rek laa dégg mu ne aji mooy aji bu Pastef Sonko et la fauté sénégalais yi ngeen ni doo leen gis loolu Sonko indi affaire ethnie juddoowul Casamance jënd juddu bi juddoo xombal gii Sonko dafa mës a faale Casamance ethnie ngeen di def mu génne président Macky Sall dafa bañ joolaay waxul benn dëgg day rube dafa tiit dafa ne du ma nuyu jigéen et eh, madame may ma toroxal ko jigéen àddina bi di ko gis ndekete Sonko ngi jàpp doomu jàmbur di tëddee amul respect ci jigéen faalewul jigéen jigéenam yi ko dawal nekk ci diaspora bi wax ba seen yàpp saf ñeex xamuleen du leen woo xoolal dugalu leen sax ci liste titulaire yi wax nan ba yàqu faalewu leen Sonko nga nee nday penda ni teg ñoom ñuy saaga ñuy saaga ndayu nit ñi ñuy saaga seen nday nday penda ngee toog ni teg Sonko boppam la bëggal ci réew mi def guuta bëgg a génn ci guuta gi xamul nu mu ciy génnee Sonko mënul dem élection ni nga ñun ñoo lay porte plainte ñun Sonko international barke alxuraanu karim yow yow yow danga war a raxasu ci Sénégal dem ci sa projet bi balaa nga toog di wax naan damay déposer candidat Sonko ñun suñu bopp yeewi leen ñu yéen xamu leen ni ngeen tuddee seen bopp yeewi askan wi barke alxuraanul karim Sonko di ngeen ñu yeewi askan wi ñoo bëgg a xam Sonko yow ak Adji man moom xam naa ndax juutu nga ma mais askan wi dañu bëgg a dégg dëgg bi Sonko Sonko amal ngor nga setal sa der bi doo wax ak journaliste yi ba waxu Adji Sarr journaliste yi amuñu fitu laaj la waxu Adji Sarr barki yonent bi yaa ñàkk jom ñu defi député yow ña ngeen fal sax xamuñu leen ndax sa tiitaane non Sonko da tiit ni nga danga tiit yow sa wax ju bari ji yëpp tiit la saaga militaire yi gendarme yi police yi yooyu yëpp tiit la ak magistrat yi la nga def moo rëy na laaj réew mi xale yi jox la attention nga manipuler leen ndekete bandi cerveau piir boo koy seet sonko nañ la jàpp nga napp opposition bi kenn ñemewu la ñuy lox génne du génn nga ni Barthélemy Dias du du leader dafa ñemee tontu yaay seefam barki yonent bi kenn du la ci conseil yaay wax yaay dindi dictateur bi ñuy wax yow moom nga di ko wax mooy yow sonko sonko moytuma sonko dalal sonko réew mi du réew xeex sénégalais bëggul xeex yaa ngi yàqal sa bopp sonko amalab ab yar sonko président yi fi jaar yëpp dañu am yar président bu fi musa jaar sa kersa booy wax ak eh, kilifa diine yi di nga wàccee sa bët ndax yar gañ la yar danga ni fajj sëñ mu taxaa sa bët yi ne ko ko fajj muy wax ngay tontu di kàccati ci wetu ku tedd ka naan ko DCD yëpp ay murit lañu waa léegi loolu lu mu miin soo ni woon DCD yëpp jullit lañu sëñ mu taxa am na benn chrétien bu ci ne wala ñaar waaye murit lañ loolu lu mu miin ñun jullit lañu wax li ngay kër sa ta ñak jom kenn musula gis fenn du tuba du tiwaawon du layen du xaadir yi du canaba ba du drame drame yi sonko musuñu la gis fenn fenn bala nga politique defo monument du école yo laloo tapi laloo basan sonko da nga xey rek ni pulle ci kaw nit ñi di len saga ba pare nak yalla fayul ña daan sosal di len saga weer la sunu borom wax boo dëkkee di weeri nit rek ku ne nga sosal ko sa bés dina ñëw sa bés moo nekk nii Sonko na sénégalais yi xam loolu sa bés moo nekk nii ay doomu jàmbur nga doon sosal ci réew mii ay doomi yoon nga doon sosal ci réew mii a ah, àq du ñëw Tunkara mu perte mi gémmiñam gi mel ni gañu tubay gu rëcc ay Tunkara ay Tunkara boo defee vidéo ba pare doo xool sa gémmiñ gi ni mu toll awan daw ananga Tungkara yow da yow sa góor jigéen gi may wax mo nek ni me yow da nga napp Ousmane Sonko yow mais góor naka lay tagge moroomu góoram ni usman tungkara ya ñàkk jom yoro dara ngay duwul wal fer nga leko nano sàcc mo jeex Amérique Sonko ñooñu la bëgg andal yow mom say wax ken mënu ko jëriño senegal yow Tunkara Kulenton, Usman Sonko, da, da, Jolala. Yow tun lan mo sa problem. Wa yow wala ba baaw yeneen xeet yi kat sa sa vidéo boobu waxaat nga ci ne tukurol yi dañu am jom am dina, am ngor Tunkara yaay sero bu ñu xotti ci digg bi rien mom nga nga fayet nak Senegal non joxatuñ la ben ben ben façon Na wa waa waa kër Sonko yi foyi mais yow Ousmane Tounkara mais duur rek ngay def yaa fi joxe numéro eh, passeport Californie noonu da ngay duur amut dangay ngay kàcc yéen man yéen dama xamul yéen dama xamul ndax boo leen di toog di vidéo di wax lu tax doo leen bàyyi seen xel ci li ngeen di wax Ousmane Sonko Ousmane Tounkara yow ak Ousmane Dramé pa xasaw bi nekk New York te torox seet leen yàlla gën di papaay nguuda ndaw di taxawaalu 116 mënul yor doomam jooju am fukki at ñaar xam fukki at ak ñett di taxawaalu 116 Ousmane Dramé xasaw paa bu tilim du watu sikkimam yi mu xuuge noo bon di wax Sénégal ñu taal ko mais di di di saagalu Serigne Touba moom Ousmane Dramé doo leen seet yàlla ak yonent bi yow Ousmane Tunkara sa ndey mi ngi fii jëndaloo ko kër day luye Ousmane torox nga ba nga amee xaalis di sàcc sa jabar nga doon changer armoire am every Friday ajjuma bu nekk awa ndaw changer di dawal oto sàcc yu ko neex moo jeex sa ndey ji mosoo ko yónnee ci oto yi xadi ñaare géejawaay la dëkk ba ma koy mujjee fàttaliku fu mu dëkk nga luyal ko fa tunkara yaa bon tunkara yaa bon amoo kër Sénégal amoo kër Sénégal may wax ni nag sa xeex boobu ngay wax yi xoolal état ñoo la faalewul yàgg Pape Alé Niang duur rek ngeen di def Pastef dañu xamuloon ni sa wokin permis bañ la joxoon ca ba ngay sàcc pour boole sénégalais yi ak ñag yi moo jeex nga ragal ko dem changer FBI di la woo nga fëgg sa gémmiñ tàppet bi waa roube jaxase ñoom ñëpp ñu daw cotiser la yoonu état new ci sa yëfu trian nga doon def sa refusé politique barke yonent bu xadi ñaara dee woon léegi doo fi teg tànk wala say mbokk doo fi teg tànk danga perte ci diaspora boobu ngay dee Sénégal doo fi ñëw léegi di ko enjoy mi ngi gisoo sama yëre tàngaay suppu kànja laa añee <laughs> maa ngi noonu di def jën bu nu lakk coof yu ndaw Sénégal a ngi toj nga tok wax ba sa gémmiñ gi yem fi di du rek di dajale weñ bu la coroxoon fofu ngay wax da ngay dé mais yow jam nga xadi ñaare jam la jur say mbokk ñok yow ci na fekk gi nga nekké katchi yeeg duli ak perte néna naa leen immigré yu bari am nañu kayit yoruñu xaaliss sen xol taab ñi am xaalis amuñu kayit ñu ñew li mo leen metti ñu ko ci ndodd Macky Sall sant yalla kii président rek la bés bu ayam jeexee yàlla jeexal ko fi day dem keneen ñëw yàbbi leen ko tunkara ba nga naree la nga yéene Macky Sall yàlla du ko mës a def tunkara yow ak Ousmane Darame ak maar américain xottam yu baax mu ñaaw noonu doon américain ma ne ko génneel sa faat aas ci Sénégal ndax maar américain nga tudd tekkiwu leen dara li ngeen di def yàpp seen pàllax maar américain du Ablaye Wade ko may kër fii ci Nations Unies xanaa kër googu dañ ko war a nangu xanaa kër googu kër la maar américain lu mu war def ci réew mi ba ablay Wade di ko jox kër fii ci Nations Unies bëggal leen sénégalais yi te waxal sénégalais ngeen nekk ci diaspora bi noonu di dugal waa Sénégal di naan nii ngeen def Assane fexé ba mu ñew mi ngi ni kenn xamul lu muy niróo yeena nga tok di naan seen i bo amé sa 3 dollars dem ca wala sa sa carte Walfare dem jëndi sa say say meew jox sa dom tunkara tekki wu len dara yeen ñepp nekk nekk Walfare yeen yéen ñooñu ñepp lu xew fi président Macky Sall tok mënu len fi tok yow Alaaji Ndaw bu radio Jeune Afrique dama la rousse ndax yow dangay sama xarit yow fuñ may waxee lu ñaaw yow waroo waroo faa waroo su ma la génne laatee dama lay wax nga dem ba ci sa ci sa ci sa rajo bi nga toog nga wéeru wax kay ma lay wax looy dégg yow allaaji Ndaw joxal leen ma ko laa wax bu rajo bi ngeen def naa fekk tekki leen dara saa yoo leen xëyee yéen a ngi ci président Macky Sall saa yoo leen xëyee yéen a ngi ci président Macky Sall muy def rek muy def rek waa kay ñëw nag di wax xew-xew bi am New York CSD le Sénégalais de la diaspora waa kay mama ah non loolu loolu loolu du lewet ñu ne kañ lay xew ca New York ñu ne la 23 ak le 24 septembre du loolu la ñu wax ah ñu ngi ciy woo sénégalais yëpp daba saye nga fa salaam jàlloo nga fa nee nañu defuñu lu dul dimbali xaley réew mi ak taalibe yi mama gasama yow ba ma ba ma xewlee Las Vegas ci taalibe yi yaay yaay ki njëkk a ñëw Las Vegas yow mamaay sa gasama xam nga ni loolu damay def ñaadam ñaadam ci kattanu yàlla def fort ñu ne kuñ ko tuddee ngeen ni ajaratu Marème Faye Sall du lii ngeen ma yóbbante joxal leen ma Marème fay sama sama sama vidéo ba ne ko jeegu New York ko yaa ngay rëkk mama gasama ak ak ak GSD ña ngay wàcce New York ci guddi ci guddi rëy yooyu kan lañuy dimbale ñu ne waa Sénégal loolu dina ma neex bu ko kenn rate foofu lay xewee ca New York waaw Mama Gassama yow loo xew xewle mu neex yaag ña ngi ko àndal yépp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaan mu réussir ak jàmm ñun loolu la ñu wax ñun dañoo bëgg sénégalais yu nekk ci bitim réew di jéem a créer loo xam ne dañ koy indi ci réew mi bu fekkee ni mais patriote la ñuy wax bu fekkee citizenu réew mi la ñuy wax da nga wara liggey fele ne indi ko fi ndimbal ya nga fa lepp nga fa waye talen dekk bi talen essenceri saga bay jamburi saga nday jamburi fan ngeen ko tek ne kenn du fay ñu ne ramaki moy saga kat ba <laughs> ñu ne ramaki moy saga kat ba wal fajri, tegal tegal asan Diouf wax len ci bobu asan Diouf la tegal sezu King mu toog fanaan damay xorom moom Assane Diouf lu tax doo leen wax loolu ñiy saaga ci réseaux sociaux bi di saaga Serigne Touba lu tax doo leen débat loolu Ousmane Sonko mi yor parasolu góor jigéen ba ca jour ba muy taw ñaar maam Matar Gueye non mel ni ku fekk euh, wàll yu toog mbéj ko kenn du yow maam Matar Gueye kenn du yow jamra maam maam Matar Gueye yow la ñuy jam ba nga mokk parce que li nga war a wax doo ko wax maam Matar Gueye doo wax ci ci parasolu Sonko bii maam Matar Gueye journaliste yi duñ la invité nga wax ci parasol bii ñun nee naa la San Francisco dëkk nañ fa 10 ans di dem Londres xam seen couleur yi man laa wax gay private maam Matar Gueye doo wax ci loolu ana yàq jikko yi ñi ne nanu rey góor jigéen ñi ana ñu doo leen wax ci parasol bi yéena naa fekk wal fajiri baara njaay génnal nga mel ni doomu tubaab yooyu toog noonu moom ngay nurool bi kuccaa doon teg moom ngay nurool génn leen ngeen wax ci sanjoogu génnal moo ngay tuddee la xajam bi noonu génnal ak son yi bu son yi bu ndono mag ñi ma ma ma ma ndono mag yi ma abonné ñu saaga la nga xof doo gaynde nekkaloo fi Sëriñ Tuubaa nekkaloo fi mag ñi doo gaynde dangay politique dañ la ñuus Baye Assane Mesere moom man li ma ko wax la rek wax ko tu dëgg la ndax moom man maa ko bëgg sama xarit la baye asan Mesere man sama xarit nga mais dama bëgg ñu bañ la di doyadil fofu nga tok non di def yefi manké manké wo sa bobbi dara nga ci ndax li ngay wax dama koy déglu amal fulla am fayda la wax nga baye ñoñu di kaf waaw kay ñak jom genn leen genn wax ci parasol bi genn leen da ngeen genn wax wali bay wax ay ak xurum xàcc góor jigéen bu mag ba ku iñaan ki ba bëtam yi suulu teg ay band muy arnaque jigéen ñi xurum xat ba pare génn di wax Sénégal ngeen koy déglu boo leen waxee ci ñiy jël faux yi wax ci ñiy violé mais wax leen ci ñiy arnaque jigéen ñi xurum xat waxtaanee leen loolu xale bu jigéen bi jooy mu takk ko pour lekk xaalisam kooku mooy génn ne day sàmm jikko yi nitu dëgg yaa mën a kàcc sa bët yu mbaar tegi gamba ndax iñaan nga am feebaru roñoo ndax mer na leen xurum xàtte wax lan mooy liggéeyam ci àddina moom ministre la wala tôlier la wala wala tailleur la wala wala wala ñoo ñu di gas la wala mais mais lan lay def rab moom bul ko tudd raboo mënoo mukk ci àddina mënoo waxala kii baxaaw waa kay waxala baxaaw ñoo ñoy la tekki wo dara waxal ci parasolu Ousmane Sonko bi ne nga nitu deug nga waxal ci parasol bi yow ak mam Matar gay do len ci wax mu sa yo len xeye president Macky Sall sen taab di bëgg ñor di toj du ñor te taabu sax la du toj te fa mu loxo jégué wuko barke alxuraanu karim yena bon nitu dara ma njëriñ si waat yi gumbala gumbala wutalub géet amoo géet boo sañoon président Macky Sall woo la Idrissa Seck dalaa raw Idrissa Seck dégg na président sax dégg na ko di bu toogul te siis bi dégg na ko mel ne ni toog na fa ne woon na fa <laughs> miin na foofu waaw kay mook Ablaye Wade ñoo campagne ba gagné ana xew yàgg Déthié Fall borom loxo beñe fii ngeen bëggal seeni jabar ñoŋ dawal ci oto yu baax yi Sonko gi tangaas ngeen def réew mi réewu kacapan du fi amee président Macky Sall deuxième mandat lañu ko laaj su ko deful mais ñun ñoo koy porte plainte mais cour de la de la haie la ñuy yóbbu président Macky Sall su deful deuxième mandat rew mi bu nu koy jox dañ koy jox ku wor dañ koy tek ci loxo ku wor malik Gakou sax mi ngi laati rew mi malik Gakou tapet bi dugg ci suufu taabal yi mom Ahmed dara amul fit Amadou ndion alias dangin rubek kat ko yow yalla ni mu la bindé dafa metti boy re no ngay def ni no yow munoo ko def Ahmed dara bobu la nattu la yalla tek demal sa bañi nii rek ngay reetaane nii la yàlla def yow kan nga doo ko def yow bu réew mi di jaxasoo ay dara loxoom a nga ca biir parce que daf kàcc-kat la mook Sonko nii in deux in deux kàcc ak nu mu tudd Babacar Touré Babacar Touré yow laay tëjee Babacar Touré Babacar Touré war nga am kersa Babacar Touré as gor day moytu fen journaliste day moytu kàcc Babacar Touré yaa mënut fen ay Baba Babacar Touré Babacar Touré Babacar Touré léegi police ngay fenal ni police yi dañuy jël jaaykatu géej yi jaaykatu keccax yi jaaykatu sable yi mais ñooñu am nañu liggéey bu ñuy fayeeku ñoo lëpp xaalis journaliste amatul xaalis yow da ngay taxawaalu ñooñu dañuy defi million nga ni ñu la police jël pour ñu ñëw songu xale yi yaay yaay préparé xale yi noonu yaay préparé xale yi noonu Babacar Touré mbonaat sa diggante fii ba fii comme mbonaat duur rek ngay def kàcc rek ngay def waaye police war naa lijjanti lii polis war na laa woo dañuy bàyyi nag ba mu ne këtt nu jom na ñuy doog a génn Babacar Touré nee na dangeen a jël ay xare police nationale yuy jaay ci mbedd mi ñii di jaay ay bant ñii di jaay ay gejj ñoom ngeen jël pour ñu attaque xale yi pour xale yi nañu préparé kër Touré lii la wax mu ngi daw ci réseaux sociaux bi police ngeen koy dégg war ngeen a woo kër Touré mu leeral loolu fan la ko jëlee parce que kàcc lay def suba ba ngoon booy réew mi di yëngatu Babacar Touré da ci bokk mais mënul buddi baaba kër Touré day yëngal di ruube mais mënul buddi parce que kàcc rek ngay def néga xoolal yàlla ci li ngay def man ngaa dee moment bu ne kër Touré bàyyi leen kàcc am na fi xale bu jigéen bu fi génnoon doon jooy jooyam yu metti yooyu Sonko ay billaay boo leen gisee nañu def Sonko way Macky Sall mais kacapan bu doyadi boo xam ni mais musuma wax sax ci moom parce que li mu waat dafa rëy ci njabootam gi ndekete mais kay foofu mu dof mi moo ko woo ni ko pikir nañ Ousmane Sonko mu mujjaat génn di baalu looyu la Pastef di dundu kaay foofu génneel génneel sa mer gàddu bi nga teg ko te nga sóonu taxawaalu rek ngay def ak kàcc yow réew mi mënu leen ko yëngal kaay foofu dinaa la wax ñaar xam nga woo nga ma fi telefon yow kaay foofu dama bëgg nga dal kaay foofu ay duul yorul réew su fekkee ni danga ni dangay politique del génnee information yu leer kaay foofu ay jamono sama gaa yi ñoo la bind nga ni Macky Sall moo la bind yow kaay foofu Macky Sall daf la xam kaay foofu Macky Sall xamula bàyyi leen sonal seen bopp di vidéo naan président Macky Sall yaa ngi may dégg gusu leen yéen Macky Sall ndax ndax seen seen mayin mi ngi dox ka ni am na taawu nekk ci réseaux sociaux lan ngeen di xalaatee yéen gis ngeen li président Macky Sall yenu 16 nga toog di seetaan lii nii make na sens yéen a bon te ñàkk jom mais gis nga Sénégal gii nii nit ñaa ngi yeewu si ndànk ndànk ndànk di xam ni yéen a ngi Europe ñi nekk Amérique ñi nekk asi moom ñi nekk France moom man dama leen a yërëm France moom ña fa nekk di saaga muy góor di jigéen am soo feel sorry for you guys dafa metti France rek sa yii nga koy faye ak yi ak yi ak yi danga taxaw ba yàqu diggante 18 euh, gare du nord di dinga ko taxaw ba yàq doo am cigarette boo tox nga bëgg ko teg président Macky Sall ba ngay dem daf ko yëg lan moo leen naqari réew mi doo leen ko bàyyi mu mu calm down nit ñi di dund dund bu neex mooy lan defar sunu suppu kànja bu neex mbaa nu kaldu ñun loolu la xam lekkuñu kaña lekkuñu golo lekkuñu jaan sénégalais mooy sénégalais boo génnee ci réew mi passé frontière bi rek yaa ngi ci guuta commencé nga commencé nga jaaxle ngeen ne Sénégal neexul président Macky Sall tàllal ilaa Touba bi demante diggante bi yow ma indil leen teer dëkk bi mu gas ko pont yi taxaw société yi nekk jam ñaajo nii muy ubbi mbas mu ñëw mu teral leen jël ci xaalis réew mi jox leen jox ko bitim réew ku feebar mu faj ku dee ame yorob mu jëli wàññil dund bi mu wàññi mais ni moom moom dund bi te sénégalais nanguwut a fay impôt waaye lii moo tax fay impôt baax ndax bu réew mi nekkee ci taka nu jël ca xaalisu impo yi réew mi fay di ci dolli nii di ko jox néew di doole ñu bari di siisu koo ci laaj taxe koo ci laaj taxe mu daw yuuxu daal comme Bougane Gueye Dany euh, waaw face Macky Sall dama koy jëli Bougane Gueye Dany say say say liggéeykat di feebar te doo leen faj ngay xeex ak ñoom ay ñeenti junni Bougane Gueye Dany wax kay doo nitu dara yow Bougane Gueye Dany réew mi xaw ma lu tax sa xel mii di ci nekk man damaa xamul Alima Jaxate fu mu ne barki lay ndar laa jëm Alima Jaxate sa mam lay seti ne ko ñu fexé ñu fal la délégué de quartier nga jang ndo yow yow gan Gueye dani yor télé rek ni damay jël Sénégal non Sénégal tamit yéen tamit na Sénégal du màngu timiri nak Sénégal nak Sénégal nak du dakaru 100 francs yi nak ba ku ku jot rek ni dama koy jël nak nañ leen waxante deug nak président Macky Sall bis buy rew mi man day xale yi ci université bi jàng ba ne ar ay vingt cinq ans docteur Jibi Jibril dëkk fii ci ci ci ci Saalum soo euh, Kaolack xale bu am vingt cinq ans am doctoral barki yonent bi nee na ma musuma jël ndaare depuis ci jardin d'enfants fils maa ngi lay saa daawut xale yu jàng ngi ci biir université bi na teg mais di mais président danga koy nuru dafa am signe Senegal dee leen xool président dafa am signe signe la da ngay tepp tepp nonu rek yor Sénégal lu xew lan mo xew ñi ngi ñaanal rew mi jamm nak di wax ni lu dul jamm ko gën li ni, wax ni safety rew mi la Ousmane Sonko déposer candidat pour ñu laalati ko la mais té xolal Ousmane ngay wuy ji aji no matter what ngay dem ngay dem wuy di comme ñëpp rek ñu atté la comme ni ñi atté ñëpp man ñuus la ci kaso bi la wax nga violer doomu jambour juutuma tek ci Ousmane Sonko doo nitu dara li ngay yëngal ni ci sa bop bi lay yëm ànd kook say ñoñ kuf ma leen yal na leen yàlla nasaxal réew mi nag ku fi wax dëgg ñu ne dañ lay dëggaate kura maki mooy saaga ku dëgg laa leen di wax bu saf sàpp li ma xale bi wax léegi damaa dajee xale bu xale bu yéeg ci moto ni ma waaye ma mama kura maki ma ne waa mu ne ma doo bàyyi Ousmane sonk mi ngay saaga ma ne ko us dama saaga mu ne ma waa danga koy saaga ma ne ko Ousmane Sonko dëgg laa koy wax cagala mune ma julli may wax ngi mané ko saga kat moy saga nday Ousmane Sonko limu def la wax dafa laaj sama rew senegal la laaj pour ñu jox ko ko ñu fekk ko ci kër ben ndaw suñu wax nday xadi nek pimp ubbi këru tiagam wut ay xalé ñuy buseni seeni moromu bay ñuy def tatu neen bay laaj ay mant ak chocolat ak ay saga ma nday dama lay tak yobula ci palé bi bul wax Sonko ya bon Sonko ya torox xam nga luñu bëgg nga def tek Sonko bañu atté la nga toroxal sa ñoon yi nek ci diaspora bi yuuxu ba mënatuñu nga jël leen leen fé jël say itil titulaire yu manki ba bare campagne eh, eh, leen kenn xamu leen nga def li nga def wa Pastef ak Amazon li nga leen def man defawon naani Fatmata Danso ak maam seen dinañu bokk ci député yi man Njaay fagoon naa loolu ndekete naw loo ndekete naw loo woo leen sàll ngaari lam tooro ak sagal bu fi yemee sax neex honorable laa dégg ci liste nationale ba ceddo ko yaabe barki yonent bi danga mën sa nit da nga mën sa nit président Macky Sall ken day yeen ci man yak ajaratu marem fay yal na len yalla defal jàmm la wax te sen jàmm moy jàmm rew mi ñi sen xol yi tab non nañ ko laaj suñu borom bi président Macky Sall doxalal ñun liñ lay ñaanal moy nga wër rek wéral rek rek barki yonent bi wéral rek ay waay waay Babacar waay waaw kooku sama sëtu joolaa bi la euh, sëriñ kër mu ndaw mu ngoog waaw ah, moo may jaay doole nii Sonko noppi nga Sonko waaw noonu lay wax may wax nag ni ko li muy def ci réew mi ñun looloo tax nu ànd ak moom les défendeurs de son excellence ak GSM groupe support Macky Sall depuis 2015 ak Xaadim Gueye sama nijaay kenn day moom Xaadim Gueye sama nijaay kenn du yow musoo jooy musoo na un musoo ni un ba mu mettee rekk nag mani Xaadim mu neex sénégalais yi mu naqari leen man ak yow kese ñoo fi nekkoon du Samba di Demba ñaar rek ñoo fi nekkoon gay njooro te musuma dégg nga ñaan téléphone musuma dégg nga ni ma connection, musu aw ma connexion musuma dégg nga ni ma Coura Macky yónnee ma wala waxal diw xaadim yaa gore xaadim yaa baax musuma dégg nga yuuxu te dangay ñëw Dakar ba dem barki yonent bi te muso tek président Macky Sall bët nii Marème Faye te xaadim de euh, depuis euh, deux mille quinze ba léegi xaadim bàyyi woo découragé woo kenn du yow man nag li ma lay def mooy ñaanal rek bu waaxu si jeexul nuñ koy waxee xaw nuñ koy waxee xaw ma nu ko olof di waxee yow moom tànk maa ngi fii ci àddina di dund yàlla dina def ba nga gis président Macky Sall te xam naa ni ci ci gisu ci gisu noble nga koy gisee ndax fa mu mette woon nga war ko gis sama nijaay danga def tekk fa doomu aadama yi di siisoo yow danga xeex ñu bokk combat bi yal na la yàlla suturaal Xaadim Géy bu Italie yal na la yàlla jàppale euh, di wax ni leen nag bu leen fàtte xew-xew boobu di xew New York le le 23 ak la le 24 septembre euh, ay jigéen yu am fulla di ko def muy CSD Mama sama bokk ci moom laa xam mooy sama nit mu yëgal ma ko loolu daf may neex bu ma gisee ñu nekk ci diaspora bi ne dañuy dimbali senegal xale yi dafa may intéressé ci seen liggéey ak ci seen formation loolu dafay rafet ñu ngi kontaan lool nag ci organisation bi ngeen ni Daba Seye koy tëgg ak Salam Diallo sama càmmiñ loolu dina ma neex loolu danaa def sama musóor ma ñëw danaa def sama musóor waaw ma ñëw yal nañ ci yàlla yeggaleeg jàmm di ñaanal Sénégal jàmm ju mot sëkk nag di leen wax duñu tàyyi di fi wax dëgg parce que nag dëgg moom la yàlla bëgg mom la yonent bi bëgg soo ragalee doomu aadama bi ñeme yàlla kooku yaay seet man dama ni ragal man di jàkkaarloog di wax ak yéen li xew leket deful lu gën pépp président Macky Sall man dama ne yabuma constitution bi man Coura Barthélemy Dias len dong la la mu wax thank you nigga thank you nigga la ko wax constitution bi Macky Sall président tous les sénégalais sept ans bi passé beaucoup ci cinq ans bi le droit am benen cinq ans bés bu président Macky Sall déposé candidat man bi gaas génn ma ku génn sama yoon nekku ci yabuma constitution bi niga man lii rek laa wax yebuma constitution bi man a Macky ba muy wax ma di ko dindi moo tax man mani moom moo tax mani constitution bi war nañ ko jàngale ci quatorze langues yi fi nekk yépp di ko jàngale ci télé yi pour sénégalais yi mëna xam lu sunu sartu réew mi wax ñu bari ñi ngay gis ñuy def ay tooxi doona xamuñu lu sart réew mi wax ba ci man mii di wax ak yeen te bari na ci morom yu xamul lu constitution bi wax xamna bu Amérique bi ndax dama jël sen passeport dama jang sen constitution mais bu Sénégal xamuma ci dara dara dara dara té du yoon nañ ñu ko ci télé yi di ko wax ci wolof di ko wax ci pulaar di ko wax ci joola soninke maninke bambara saraxule lépp lu fi am ci làkk ñu ko ci wax soo defee lii lii moo la ci fekk article lii lii la ñu xam mais bu ñu ko deful du ñu xam président ñu ngi la koy ñaan nga defaral ñu constitution bi ñu di ko teg ci télé yi ñun ñu di ko dégg ñun ñu di ko dégg ñu ngi leen di ñaanal jàmm nag ah Coura Macky da doon naayil boppam barke Alxuraanul di nelaw di naayil sama bopp di féexal sama bopp Sénégal neex may gis nit ñi ci jàmm am sama indépendance réew mi neex nit ñi nekk ci seen jàmm yéen ñi nekk ci diaspora bi fii ñi ngi ci seen jàmm ku newul ci sa jàmm indil sa bopp yenu yenu àddina ba ko jël teg ko Macky Sall ma ñun faalewun la ñun nun lii lañ wax nun lii lañ wax maa ngi leen di ñaanal jàmm nag di leen wax ni leket deful lu gën pepp président Macky Sall président Macky mooy président tous les sénégalais yi respect bi ñu ko war a jox bu nu ko ko joxut ku mu mën a doom yow am nga affaire ak man Coura Macky may muna buso gi ñu wara warawah. wax mu génn ne APR rek Benno bokku yaakar léegi dañuy genn di news may muna buso women ma jox la sama numéro ba léegi woowoo ma te news ma man ci sen rewane gi mère Aïda Mbodj mom du doyal man dama tayi ci mom <coughs> ibadou la du doyal barki rasoulay ministre de la femme ministre ba mère ba tey nga ni do bàyyi ñing lay ñaanal guddu fan ak wër gi yaram gu rafet te di la wax nga ñuy xelal ñun ñii di doon ndaw di doog a dugg ci politique bi nga ñuy wax lu baax ñu di ko dégg ay dem mbooj bokk ci jeeg ji ne teg ñun soxla woon nañ la ci lool de barkeer yonent bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm ajaratu ndey sali jën ñu ngi lay ñaanal jàmm di la wax foofu nga ko jàpp foofu la yaa ngi liggéey liggéey bu am solo ci jigéen ñi dina am ñu ko gis nag dina am ñu ko gisut ndax ñëpp mënuñu ne baax na te yi fan yi nii yow la ñu bëgg yow la ñu bëgg a këpp këpp kaani gi waaw yow lañ ko bëgg a këpp te xamuñu ne nit ku baax nga man duma waxantu barki yonent bi nit ku baax nga te jigéen ñi xam nañ ne nit nit ku baax nga ku jot ci yow nday sali xam ne nit ku baax nga mais fan yi yow lañ jël mu muñal rek ñëpp mënuñoo ànd bëgg la maa ngi leen di ñaanal jàmm nag di leen wax ni Coura Macky fan yi da doon naayil boppam di nelaw waa régler sama servo waaw kay salut waaw kay